أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom mu ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid toll ba tey ci buntu fanweer ak ñeent mooy baabun min al imaani billahi assabru ala aqdarillah bismillahi tabaraka wa taala tey moo nekk sunu ñeenteelu dars ci hadis boo xam ne muslim moo ko solo abu hurayra nettali ñu ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na isnataani fi nnaas huma bihim kufr attaanu fi nasab wannaahiyatu ala almayit abu hurayra nettali nañu benn ci hadis yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy jàngale ñaari mbir yoo xam ne ku ko def def nga jëfi ceddo ku ko def def nga jëf joo xam ne mën na laa weddiloo yàlla tabaraka wa taala moo tax yonent bi ne isnataani fi nnaas ñaar ci nit ñi jëf jii may bëgg a wax suñ ko moytuwulee dana leen dugal ci weddi yàlla tabaraka wa taala isnataani fi nnaas ñaar ci nit ñi huma bihim kufru ñoom ñaar ñooñu ñaari mbir yooyu ci nit ñi dey kufrun kéeféer la ñu ne yonent bi loolu mooy lan mu ne attaanu fi nasab di jam nit ñi ci seeni askan diw tëgg la diw doomi njaaloo la diw du gor diw jaam la jam nit ñi ci seeni askan ñu ne ko ñaareel bi mu ne wa naahiyatu alal mayit ak di salleeru boo amee néew boo amee ku faatu di bërëngu ci suuf si di xëpp sa bopp suuf dóor sa bopp ci ay ëkk walla ay doj xotti sa yére tas sa musóor walla sànni sa mbax na yonent bi nee na ñaari mbir yooyu day ak kufru la kon dana jaadu mbokk yi comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari mbir yi kufru la kon dana jaadu ci ñun ñu jéem a leeral lenn ci boroom xam-xam li ñu wax ci kufru gi mu ne waddaha al ulama rahimahumullah boroom xam-xam yi yal na leen yàlla yërëm leeral nañu ne annal kufra kufraani kufrun akbar wa kufrun asgar boroom xam-xam yi leeral nañ ne weddi yàlla ñaari façon la weddi yàlla ci ñaari anam lay amee ci ñaari wàll weddi goo xam ne weddi gu rëy la ku ko def génn ci lislaam ak wedd goo xam ne weddi gu ndaw la ku ko def am na bakkaar mu ne far fal kufrul akbar mislu ibadati gayrillah wa du'a il amwaat wal istighatha bil amwaat wa talabi al madadi min al amwaat aw min al asnaami aw min al ashjaari wal ahjaari aw min an nujumi aw al jinn hada shirkun akbar wa kufrun akbar mislu sabbi diin sabbillah sabbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kullu hada ayuha al ahbab kufrun mbokk yi weddi gi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi wax ku ko def weddi nga yàlla te mooy weddi yàlla gu mag ñu joxe ci ay misaal ñu ne mi ngi mel ne jaamu xërëm jaamu kudul yàlla woo ku dee ñaan ko xettali ku ci ku dee sàkku ak yokk sàkku barke ci ku dee الصلاة والسلام على رسول الله yi yépp wala jaamu xërëm wala jaamu garab wala jaamu xeer
عدد wala biddéew lii la mbokk yi dafa bokk ci kéeféer goo xam ne dafay weddiloo nit yàlla te daf koy génne ci lislaam mu ne kullu hada kufrun akbar lii yépp weddi yàlla gu rëy la mislu hukmu li gayrillah mislu sabbi diin saaga diine sabbillah saaga yàlla saaga yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii lépp ay mbir la yoo xam ne ku ko def génn nga ci lislaam kéeféer gii daf lay génne ci lislaam comme attewoo ci lu dul li yàlla bind lu dul li yàlla wàcc daa di daganal lu yàlla araamal araamal lu yàlla daganaloon fekk loo xam ne mbir mu dagan la nga ni araam na fekk mbir moo xam ne yàllaa ko tere jaam ñi nga ni dagan na mu ne haza kufrun akbar wa ma asbaha zalika lii kéeféer la goo xam ne ku ko def génn nga ci lislaam ak yeneen yu mel nii nee na sax yemul ci loolu waaye dafa bokk min nawaqidil islaam dafa bokk ci li yàq islaam ka jahdi bi wujubi salaa comme weddi julli ñu ne julli nga naan moo julli de amul solo ah def ko daal taxut a dugg àjjana julli daal dëgg-dëgg na sa xol set rek weddi julli ñu ne déet nga weddi azak ñu ne déet nga ni njaaloo dagan na lii lépp ay mbir la yoo xam ne mbokk yi dafa bokk ci kufrul akbar weddi yàlla goo xam ne weddi yàlla gu mag la ku ko def da ngay génn ci islaam mu ne fa iza stahalla ma harama allah mimma huwa maalum min ad-din bi darura ka zina wa saraqa aw il-xamr kaana kaafiran kufran akbar su fekkente ne kii dafa daganal lenn ci lu yàlla araamal mu ne dagan na te loolu mu ne dagan na leer na borom xam-xam yépp ci ànd ne lii araam na lu mel ne njaaloo yàlla da ko araamal nit daganal ko lu mel ne sàcc yàlla da ko daga da ko araamal nit daganal ko lu mel ne sàngara yàlla da ko araamal nit daganal ko képp ku fekk lu yàlla araamal yow nga daganal ko nee na waa jooju kaana kaafiran yéeféer la mutlaqan jaratul muy def benn jaamu yàlla ndax bu ko defee yàlla du ko nangu waaye kufran akbar yéeféer goo xam ne ci kéeféer gu mag gi la bokk wala aw jahada ma awjaba allahu wala mu weddi fettéerlu ne li yàllaa ko wax mais man duma ko def ka zakaati lu mel ne joxe azaka wa salaati lu mel ne julli wa sawm lu mel ne koor sawmu ramadan mbir la yoo xam ne su ko ab julli lànkee lii te mu war mu ne kafara weddi na yàlla weddi yàlla goo xam ne weddi yàlla gu mag la mu ne wala mu saaga yàlla wala mu saaga yonent wala mu saaga diine wala mu bàyyi julli te moo ko tey mu ne nasalullah al afiya kon mbokk yi war na ñaan yàlla jàmm ak tawfiix ba musiba yu mel nii yàlla musal ñu ci ndax kat dars bi mooy isnaani fi naas huma bihim kufr ñaari melokaana ngi nii day yóbbu nit ci kéeféer waaye ban kéeféer kon gis nañ kéeféer gu mag gi mu ne amma al kufrul asgar bu dee weddi yàlla gu ndaw mooy mislu hadis bi mooy mislu hadis bi ñu jàng hadis bi sunu kanam isnataani fi nnaas huma bihim kufrun attaanu fi nasab wa nahiyatu ala almayit mu ne hada kufrun asgar lii weddi yàlla gu ndaw la li annahu kafara munkarun fi siyaaqi al isbaat wa huwa kufrun dafa am loo xam ne diine daf ko saxal ne ku ko bàyyiwul dafa am fu mu lay yóbbu kon mooy tandikoo jar balaa mu lay yóbbu ci weddi yàlla goo xam ne weddi yàlla gu ndaw la mbokk jullit yi kon danañ dégg ci suñu dars tey ne weddi yàlla ñaari xaaj la kufrul akbar wa kufrul asgar loolu la ñenn ñi naan al kufru nawaani kufrun yuxriju min al milla wa kufrun laa yuxriju min al milla weddi yàlla ñaari xaaj la ñaari façon la weddi guy génnee nit ci diine yàlla ak weddi goo xam ne du la génn ci diine kon mu ne hadis bi ñuy jàng nii dafa bokk ci texte yoo xam ne du la génne ci diine ndax weddi yàlla gu ndaw la mu ne haddadun mu ne bu fekkente ne mooy weddi yàlla gu ndaw gii ñu wax te mooy jam nit ñi ci seen askan at taanu fi nasab wa nahiyatu alal mayit mu ne haza kufrun asgar lii weddi yàlla gu ndaw la mu ne wa taanu fi nasab maanaahu ayibu ansaabi nnaas lan mooy jam nit ñi ci seen askan mooy nga ayibal leen fekk nit ko jotalul dara même bu ngeen jotee sax nga yàq askanam wax ci moom loo xam ne dara amu ci yow tëgg nga ñi ay jaam lañ ñi ay nangam lañ wala sax kii doomi njaaloo la judduwul ci yoon loolu tey da ngay gis nit ñi di ko def fekk koo xam ne xëy na da ngeen am problème bu ndaw rek wala nangam ak nangam ak nangam rek nga yàq askanam loolu diine daf koy tere mbokk jullit yi xam ngeen ne nit ñi ñëpp a yem yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci quran inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa yàlla ko wax yéen ñëpp maa leen bind ngeen jóge ci góor ak jigéen soo toppee aaya ba muy jeex yàlla dana inna akramakum indallahi ñi gën a baax ci yéen mooy ñi gën a ragal yàlla waaye yàlla waxu fa askan yonent bi wax na kullukum min aadam wa aadama min turaab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyee ko aadama ci suuf la ko yàlla binde yonent bi ba tey wax na ne annaasu sawaasiya ka asnaanil mus ñëpp a yem kom bu ñu peñe ñëpp a yem kom bu ñu peñe yonent bi sax wax na la fadlun li arabiin alal ajam illa bi taqwa ku weex gënawul ku ñuul lenn ajam mooy kudul arab képp kudul arab ajam nga léeg-léeg nga dégg fii sax ci ñun ñaan ñag ñag dañu di ay ñag lañ yow mi naan ñag diw ñag la yow ñag nga parce que yonent bi naan kudul arab ñag la kon yow ñag nga ba pare nga naan nit ñag xam nga wax ñii ñag lañ est ce que kooku daf ko wàññi wala daf ko yokk da nga ko bëgg a wàññi wala da nga ko bëgg a yokk da nga ko bëgg a wàññi kii nangam la da nga ko bëgg a wàññi wala da nga ko bëgg a yokk loolu la ñu diine di tere kenn du jam askanu nit mu ne loolu islaam daf ko tere wax nit ñi tëgg lañ ci ay bal leen wala ñi ay ay ay menuisier lañ wala kii nangam la loolu diine daf ko tere te bàkkaar bu mag la moo tax ñu war ko bàyyi beneen bi ci tegu mooy annaahiya mooy salleeru mooy li xew léegi di yuux soo amee naqar te dañuy jàng bunt bi mu ngi jàngale muñ kon bu nit faatoo lu mu metti metti metti war nga ànd ak sa sago ba yenn caali di du la ci fekk yuuxu génn ci sa gémmiñ loo xam ne jaaduwut jëf ay jëf yoo xam ne ëllëg ak si biir ku la gis dina xam ne yow mii wax dëgg yàlla amoo sago yow amoo dara ci ngëm yàlla ab jullit warul mel noonu mu ne yii ñu wax nii haza naw kufrun lii weddi yàlla la lakinnahu asgar waaye weddi gu ndaw la mislu xadis sibaabul muslim fusuuq wa qitaaluhu kufru jàng nañ xadis yonente bi alayhi salaatu salaam ne saaga jullit kàccoor moo koy def mu ne wa qitaaluhu nag kufrun xeex ak moom ak kéeféer la waaye loolu tamit yóbbu la ci kufrun yuxriju min al milla ki weddi yàlla gu lay génn ci islaam waaye dina la yóddi ci weddi yàlla gu ndaw mu ngoog li yëpp ay texte la yoo xam ne boroom xam-xam yi ñoo koy càmbar pour di la wan degré diine ji ni mu toll pour nga war a xam nga def attention parce que kuy def lu ndaw lu ndaw li ci lan la la jëmee ci lu mag képp koo gis muy bëre mbapat fu mu jëm bu demee ba dëgër fu mu jëm arène ba képp koo gis mu nekk école football bu demee ba dëgër fu mu jëm mu ngoog kon nag yooyu kufur la yoo xam ne nit na ko moytandiku parce que fi mu koy jëmee mooy mu yóbbu la ci nga def musiba boo xam ne lislaam daf koy tere te mooy ci kufur gu mag la la jëmee mbokk yi mu ne huma bi naasi kufrun ñaari mbir yi ak kufru la xay su kaanat amil amalil jaahile ndax mbir yi kat mbiru ceddo yi la woon démb yi ñu wax nii ceddo nga daan waxaat rek mu ne yow amoo baay te ba léegi looloo fi nekk da ngay jékki-jékki rek ñu ne waaye diw musul imaam de nga xam nga ne doo njiit pourquoi du ma jiite yow ngay ngay tëgg yow ngay géwél yow ngay nangam wala nga ne nga ñëw benn kër bu ko tàkk jabar ñu ne moo yoo xam nga ne kat yow mun duñ la may jabar lu tax ni moo yow ngay nangam ñun ñuy nangam gis nga waaw loolu xam ngeen ne moo tax mu ne loolu mbiru ceddo la ceddo yoo ko doon def démb di utal nit ñi fiñ dëkk ñii ñii ñii ñii ñii tey nag looloo fi ama di nga dem sax ci dëkk ñu def bàmmeelu gor yi ak bàmmeelu jaam yi am na ah dem nga benn dëkk bu am juróom bàmmeel dégg nga juróomi bàmmeel benn dëkk bàmmeelu jaam ñi bàmmeelu gor yi bàmmeelu xolo bàmmeelu pël bàmmeelu tukulóor bàmmeelu naar loolu mooy lan loolu léegi loolu tey bu ñu ko doon topp fii ci dëkk bi kon est-ce que di yaakaar ngeen ne dina nit ñi dañu am fuñ dëkk bu ñu noonu nañ defar bàmmeelu tukulóor yi côté bii bàmmeelu séeréer yi côté bii bàmmeelu joolaa yi côté bii bàmmeelu soose yi côté bii bàmmee kon nit ñi duñ duñ am fuñ dëkk di waaye loolu moo lay wane nit ñi ceddo yi ba léegi mu ngi am te li garaaw mooy ñee sax ñooñu tane lan moo tax ñee ñooñu tane parce que ñee xamuñu woon diine bañ koy def diine amut diine ñëw nit ñi ne ñoom ay julli lañ ba pare di def loolu gisoon naa dëkk boo xamante ne bu fa géwél dee xam nga fu ñu koy dugal ci garab kenn du ko suul ci armeel yi benn guy gi dafa am ngandu pax dañuy yëg rek ne tëmb dem ñibbi benn waay moo ko fa dindi bu am xaalis nekk France papaam dee mu téléphoné dëkk ba ne ku ko dugal ci guy gi bu ma ñëwee naa la tëj ku ko dugal ci guy gi bu ma ñëwee tëj la gars yi daal di ñëw ba ci wetu guy gi ci suuf ñu gas fa léegi ku dee ñu gas ci suuf guy gi teg la léegi kenn dootu leen dugal ci biir pax xool loolu bu noppi woon rek ñu dugal ko ci loolu mooy lan tey yooyu nag ñoo fi am te li koy ñi koy def ma ne ay jullit lañ loolu moo tax mu garaaw bàmmeelu sàngam bàmmeelu sàngam bàmmeel ndeysaan dañu romb benn waay bu dëkk ci bàmmeel yi ay at buur bi ne ko yow looy def ci armeel yi mu ne damay xam dama bëgg xool yaxu buur yeeg baadoola yi moom laa bëgg xool nu mel mu ne noo ko gisee mu ne ah man kay yëpp laa gis mu furax yëpp laa gis mu funax yëpp a tolloo amul njëriñ bàmmeel kuñ fa dugal ku dul ku yàlla musal bàmmeel dina la tànc suuf si dina lekk sa yàpp sa lépp dina toj waaw moo la ngeen dégg yonent bi na hadis nit ñaar rek ñoo koy suur nit ñaar rek moo lay suur lan suuf suuf ah kon xam leen beneen bi ma waaye ko noonu ba ngeen trouvé ko rek ngeen demee ngeen gëstu ko gis nga wala ngay xam ne baam suuf mooy suur nit nit dee kon dugal ko ci bàmmeel bi trois jours nga dem soo ñëwee nooy fekk bàmmeel bi def day rës su rësee day fekk bët yi luqateeku na suuf si dugg na bakkaan yi lekku na suuf dugg na gémmiñ gi ŋaang na suuf dugg na nopp yi deñ na suuf dugg na biir bi toj na suuf wàcc na ci moo la yonent bi ne suuf rek mooy suur nit waaye leneen du suuf xaalis ni alal du la suur mukk fi mu nekk ni borom alal lu mu am am alal boo nee bu xeet million ne ko nii mun a indi doy na ban borom alal bu ngeen dégg mu ne doy na waa yooyu ñu naan léegi moo fi ëpp alal xaw ma borom Facebook xaw ma borom Google soo ko ne woon million bis bu nekk mu ngi def ay projet pour lan xaalis bi gën a yokk ak kon kay war na doyal boo xam ne nañ adduna bi yaa fi ëpp xaalis waroon nga toog nga ni eh doy na bu ma ke doy na waaye ki la gën a am ëpp xaalis bis mu nekk mu ngi def ay projet mu ngi ubbi ay société pour xaalis fi ñëw du suur mukk waaye yenn na suuf rek mooy suur nit waaw mu ne dugg bàmmeel suuf si ne bëpp sa kaw waaw amatul fu mu dugg nga ni këcc nag suur nag lan yàlla taxaw mbokk yi mu ne yonent bi nee na ñaari mbir yooyu jëfu ceddo la wa huma qaimataani bi naas mu ne loolu nag tey lu am ci nit ñi la dëgg la dëkk boo dem ci làkkat yi may lim lim da gën a bëri tukulóor saraxule bambara ñii aka ñoo bëgg yéen nangam waaw booy nañu ne yéen ñii onon ɓeeɗo onon mi kokkatawan rewɓe koy ko maccuɓe on ko horɓe onon onon onon ha a pël Fuuta yi ci lañ bokk a ca bokk Hamidou gis nga waaw lan la yonent bi wax kullukum min adam wa adama min turab wala loolu du diini mu ne loolu ba léegi mi nga am wala yaslimu minhuma illa man sallamahu llah ñu bëri muccuñ ci lu dul ku yàlla musal ku yàlla musal rek ngay gis yi ñu génn ci waaw yàlla musal mooy nga gis yi ñu génn ci te yooyu booy xool cosaan amul woon waaye ay liggéey ko indi diw dee liggéey ci weñ ñu ne kii tëgg la te lu garaaw mooy soo ne du ma may sama doom tëgg benn soudeur métallique ñëw fii nekk milliardaire yor société bu garaaw comme Safor xam ngeen Safor Safor mooy ban usine mooy defar zinc acier yi armignon yi syndicat yi ponda yi armignon yi weñ yi yu rafet yooyu DG bi ñëw ne la mu bëgg sa jawaar doo ngeen macha allah bismillah ahlan wa sahlan bik kooku lu muy liggéey ah oh soudeur bi ñëw lu muy liggéey métallique bi ñëw lu muy liggéey du weñ lu sax nga ni doo ko may te te doo may tëgg bi tekki ko ci loolu lay liggéey ñee dañ ko rafetal rek defar ko ba rafet rek benn la voilà saka ak rab encore rab rab bu ñëw kërëj kërëj nga ni oo ko sakke téer ñëw nga mekk li ñuy liggéey yooyu moo fi bëri da ngay gis ku ne man duma may ñoom diw kuy liggéey ci loolu ñëw mu may ko wala sant yi di xool sant yow noo sant nga ni man nangam ñu ne ah fuy seen dëkk nga di la enquête mais bu dee borom xaalis laa wax bu garaaw billaahi wallaahi bu yeboon sax ngay lekk nit dañ lay may bu yeboon ngeen di lekk nit ñi dañ leen di may ci loolu ngeen di gis loolu nga gis ba ku ñuy wax dëmm ci quartier da ngay gis ci koñ ci dëkk da ngay gis ko amul dara la maire boo gis wala paa boo gis wala kër goo gis ñu ne ñi ay dëmm lañ day fekk ndeysaan amuñu kër ga dafa ñàng baraag yuy waaj a daan wala ay sàkket wala amuñu luñ lekk xam ngeen ko amul lu mu lekk moom day sonn kooku pour pour pour mu jeex wala mu yooy wala bët yi dugg biir bi dugg tànk yi njool sew pour mu ñàng loolu normal la da ngay gis fi ku feebar rek te du weer rek soo weer ii waaye sa waay jeex na de ñun gis ngeen ko ni mel voilà léegi nag ñooñu boo dëkkee ci koñ bu dëkk bu mel noonu koñ bu mel noonu ndeysaan nit ñi dañ lay daw te bu fekkee gor la nag du mun a dem di ñaani di taxawaalu di dugg fu nekk isolé wu boobu muy isolé wu nit ñi pour kii ñu ne gis nga kii ba ba ba dëmm la de noonu saa yi noonu la ñuy def noonu la ñuy def ba yenn saa yi sax ñu ñëw rek taal këram rey ko ak nit yu bëri tooñ nañ leen noonu rey leen rey ci rien ñoo xam ne du ñu dara moo tax yowmal xiyaam dana métti trop ci yàq yàq nit yàq askanu nit yàq deru nit fekk ku nekk à l'aise am nga wax ko loo xamante ne dundam yëpp foofu lay jaar yàqu wala mu dem xaru ji fekk koo xam ne mu ngi ci jàmmam nga ne ko yoo xam nga ne doomu njaaloo nga mu ñëw ne yaay ana sama papa ñu ne ko lambar lambar rek mu naan poson parce que dañ ko wax loo xamante ne lii mus ko xalaat ci àdduna yooyu nit ñi nañ ko bàyyi parce que islam daf ko tere loolu moo tax mu ne yooyu nag yu nekk tey ci nit ñi la lu dul ko yàlla musal illa man sallamahu llah wa razaqahu ilman wa imanan yastadiu bihi lu dul ko yàlla wërsëgal xam-xam yàlla wërsëgal la ci xam-xam bi nga am ci ngëm ngëm goo xam ne ci ngay leerlu li nga war a def ak li nga war a bàyyi lu dul ñii rek ñoo ci mucc lu dul ñii ñoo ci mucc ay nit yoo xam ne tey da ngay ñëw ne leen nangam ñu ne la déedéet yenn saa yi sax nga gis borom xam-xam bu daanu ci mbir yu mel noonu man leen nangam ñu ne déedéet loolu man du ko def islam moo ko wax man du ma ko def de du ma ko def waaw lu islam wax ne baax na kay kon yow jarul la ngay jàng islam du ma ko def de du ko def de lakin laysa man qaama bihi shuba min shubil kufri waaye foog ñu bàyyi xel ne nekkul ne aussi yooyu ku ko def rek te di nga yàlla kufru goo xamante ne do saye déedéet waaye ku ko def dugg nga sóobu nga benn xur ci xuru weddi yàlla yi suba mooy xur xam ngeen xur ah voilà maanaam aw yoon dugg nga ci yoon ngoo xam ne minal kufru yasiru kaafiran soo ko wàccul boo jaaree ci yoon di dem wàccoo yoon bi foo jëm egg rek fu mu la jëmee nag mooy ci kufru goo xam ne nag léegi yuxruju minal milla terminé parce que yenn saa yi nga gis ci ñooñu dogu ci dogu goo xam ne bu dëkk bi yëpp doon ànd mbir mi da nga naan mukk ci àdduna du fi amee waaw kenn du ko fi suulee du fi jiite mu jaral la nga taal jàkka ji léegi kay léegi fu mu la lu mu la yóbbu mooy kufrun yuxriju minal milla moo tax mu ne ku ko def rek soobu nga benn xur ci xuru weddi yàlla yi yasiru kaafiran day mujj nekk kéeféer al kufrul mutlaq kufru goo xam ne dañ ko boyal dégg nga de kama annahu laysa man qaama bihi shuba min shubil iman naka noonu sax ci ngëm di nga gis yenn saa yi nit def loo xamante ne ngëm yàlla la waaye nag nekkul ku gëm yàlla ne dina def yenn saa yi nga gis ku def benn geste bu baax bu yàlla bëgg pourtant waa jooju li mu def ku gëm yàllaa koy def mais moom bi mu koy def daf ko def nii rek mais gëmul yàlla loolu moo tax jëf yi am séparé séparation gis nga mu ne yasiru muminan al imaanul mutlaq nee na waaye nag waa jooju tamit aussi su bàyyiwul jëf yooyu bàyyiwu ko jëf bàyyiwu ko jëf jëf jooju fu mu koy yóbbu day dem ba mu yóbbu ko nag mu nekk ku gëm yàlla nag ngëm yàlla gi dëgër mu ne wa farraq bayna al kufri al muarraf bil laam bil alifi wal laam kama fi qawlihi laysa bayna al abd bayna al kufri aw shirk illa tarku salaa pour ñu xam ñaari kufru yi am na différence mooy xool leen kufru gu njëkk gi ñuy jàng ci hadis bi amul amul alif ak laam alif ak laam ci arab al maarifa lañ koy wax luñ ko wax rek mooy leer na fële nag nakira la moo tax mu ne gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy wax fii ci hadis bi diggante jaam bi ak weddi yàlla ak bokkaale yàlla lan la kufru gi fa yonent bi utilisé mooy lan la ban kufru la al kufr bu leer bi moom mooy yuxriju min al milla boobu lan nga def mooy da ngaa bàyyi julli wala ku bàyyi julli rek moom dugg nga ci bu ngand bi yéeféer piir nga mu ne wa bayna al kufril munkar fil isbaat gis nga nu róowul ak bi nga xamante ne dafa ñëw saxal boobu bi saxal dafa am alif ak laam bi saxalul moom ay amul alif ak laam moo lay yóbbu ci kufr gu ndaw mu ne qawluhu attaanu fi nasab wax ji yonent bi wax ne jam nit ci askan mu ne ayibuhu mooy nga ayibal ko ayibal nit kii de diway yaayam pour wàññiku kii de diway baayam pour wàññiku kii de mbokk diw la pour wàññi ko yooyu ay jullit na ko da ko bàyyi mu ne waaye duxulu fii dina ci dugg an yuqaalu an yuqaala hada laysa ibnu fulaan waaw mooy jékki-jékki rek ne diw di doomu diw loolu da nga koy dégg fii ma dégg naa fi ay kilifa yu mag gaay naan moom diw a ko jur wala diw du baayam ay ko wax nit am na nit am na doomam doom ji màgg na ba am juróom fukki at mosu ñoo dégg waa ji ne man juruma ko kon la nit ñi demee fee naan juruma ko moom day mbill gaa ngi nii toog waxu ko du ci yoonu nit ñi te bépp doom bu juddoo ci lal képp ku wax ne diw juru ko dañ ci islaam dañ laa war a caw waa jaa ngi France jabaram am na doomam ginnaawam waa ji yónnee xaalisam ne ngénte leen seen yoon nekk ci sama doom la nit ñi bëgg a nekk fii di ci discuter ñoo ñëpp islaam da leen jàpp caw leen parce que doom ji ci yoon ci ci sëy la judd ndaw si am na borom kër lu dul nag waa ji ne juruma ko du sama doom waa ji noppee ku ci wax dañ laa war a caw te loolu looloo fi am kan ko dee nde gor ko waɗan nii de loolu lay xëcc caw la te tey loolu am jàpp nit ne ko diw du sa baay yooyu diine daf ko dàq wala judduwoo ci yoon wala nangam ak nangam wala ba ngay juddu nangama xewoon di daaneel nit di dindi personnalité lépp luy yàq deru nit islam daf koo tere même bu dee dëgg la nag amoo droit wax ko moo tax islam daf lay cawlu surtout nag nga wax nit du doomu yoon loo tuumaa yaayam ak baayam dañoo njaalo est-ce que fekk ku njaaloo ñaata seede la war a indi boo ko amul dañ lay caw kon yooyu mooy te niku dafa nopp dafa war jaadu gis nga mu ne yooyu dañ naan diw du doomu diw maa subuuti nasabihi shar'an te kat askanam dafa sax ci sharia mi ngi nii askanam yow nga taxaw daan ne du doomu yoon du doomu nangam du doomu diw loolu dafa haram mu ne qawluhu wa naahiya al mayit wax ji yonent bi wax ne salleeru ci ku faatu mooy raf u sawt bi nat bi jooy ku faatu dagan na waaye lan lañ bañ yuuxu comme ni ko nit ñi di defee wooy fuñ jëm ak wooy torox nañook wooy ñun alku nanook wooy nangam nangam ak boole ci ay wax yoo xam ne bu dee ci sama mbokk yi dañ koy woy feeram bo nii yoo wooy miin yoo di ko def yu neex yoo xam ne non sa yaram day daw loolu ba mu toog ci comité ñu wax bu yeegoon yooyu ñu ko lal mu ne daa am sama benn boobu waaw daal bu bu dee ci bu dee ci dëkk yi moom suñu dëkk yi def ci am ñoo xam ne daanaka ñoom loolu mooy seen métier sax yenn saa yi dañ leen di fay leen di fay de ñu ñëw am air yu ñu koy waxee yoo xam ne yu di ci boole ay wax yu waaw su ko defee nag ñu ne ndeysaan kii ku baax la parce que dañ naan nit ñi boo dee jooy ñu la baaxu waaw ba dee ñu yuuxu la fekk yàlla xam ne ne baaxu ba njëriñ la am ah yooyu wallahi ba léegi mu ngi am te diine daf ko tere su ngeen duggee léegi ci kaw gi fii gis fa yoo xam ne so subhanallah la hawla wala quwwata illa billah mooy yëkkati baat bi ci kaw ak di lim ngëneelu ku deeki mooy di lim ngëneelu ku deeki moo def nangam moo def nangam di yuuxu moo def nangam moo ñu yoroon moo yoroon kër gi kër gi yàllaa ko yor moo daan fay courant moo daan fay ndox dund mustamanki ku feebaroon moo lay faj ana yàlla yàlla ko jaarale woon ci moom rek lima fii min a tasaxuti alal qadri gis nga mooy da nga fay nekk di wax boo xam ne da ngay weddi ndogalu yàlla da ngay weddi ndogalu yàlla yow daanaka li yàlla def neexu la su yàlla ne woon tëpp cëpp sa kanam tey nga poñe ko ne ko delloo ruu gi noonu yàlla musal gis nga almunaafi li sabr wax yooyu dafay dàq muñ muñ la fiy dégager waaw suñu benn xarit mos nañ ñu toog ci fi ñu doon jàngee rek ñu ñu ñu ñëw ne ko sa papa gaañu na ñu tëj école bi ñun ñëpp daw dem mu fekk leen ñuy bërëngu di yuux am na ci benn xale bu jigéen bu mag biñ ko téye na maa tay yu wax wax yu bon ci yàlla waaw ay ay ñu ngi daal di koy sori quoi ñëpp daal di koy sori ah di wax wax yi doy waar ba léegi nii su ma ko xoolee geste boobu mu doon def ak wax yooyu mu doon wax ba léegi man su ma ko gisee rek mënuma fàtte loolu image yooyu mënuma ko fàtte te léegi dee na mën na léegi ay juróomi at ban njëriñ la am ñam dee ñam jeex gàcce des moo tax jullit bi war a war a delloo si xel ci taxawaay yu mel noonu war a muñ xam ne lii ndogal yàlla la bu yàlla tëral ci kawam te munta ñàkk ndax kullu nafsin zaiqatul mawt ku mos dund rek mos dee kon yooyu dafay dàq muñ ka qawli naiha mu ngi mel ne waxi kii xaacu ah ñun fu ñu jëm yoo wooy ku nuy wàllu yooyu ay mbir la yoo xam ne wa nahwi zalik ak yeneen yu mel nii nee na loolu wa fihi dalil ala anna sabr waajib kon lii dalil la buy wane ne muñ dafa war wa anna min al kufri ma la yanqulu anil milla loolu tamit dafay wane ne am na ci génn kéeféer goo xam ne du génne nit ci lislaam waaye boo ci moytul di ci continuer rek mën na laa génne kon mbokki jullit yi lii mooy darsi tey ngi jéggalu njuum tey di ñaan yàlla mu defal ñu ci yiw assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu